Your asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziyaare leen nuyoo bi nag ñu jiital ci saaxibul fadila sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifatul am li tarixatil muridiya xafisahullahu waraaxaw ñu ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko waaye noonu la ñuy ñaanale mboolem kilifay diine yi nga xam ne ñooy yeewoo ci biir réew mi ak bitim réew suñu borom defal leen jàmm mbokk yi xam ngeen ne Magal TV nag moo leen digoon plateau yi nga xam ne dañ koy amal ci bis ci weeru safar wi bis bu set ak plateau bi ñi amal tay nak xam ngeen ne ngeen andat ak Magal TV ci fukki fan ak ben ci safar dëppook alxames ñu fasiyene dalalat ba ibrahim mom bay job mi nga xamne ne mom bay Serigne Cheikh sar jassaka waye di setu yeesal Bamba tewat fi tay ci Magal TV fasiyene andat ak yeen ci ponk bu am solo muy magal gi nga xamne ne muy fukki fan ak juroom ñet tañ deggmal ko dikki gi nga xamne talibé seigne touba yi ak mboolem umma islam bi war nañ ko dikki ci dëkk bu sel bi touba tay joggé ci ay gox yi fasantikoo defe naa waxtaan ak ñom ci dikk gogu amna solo ba kenn ku ci ne xam ni ngay def ba mëna ñew ak waccay wi li ci aju kon damay daal di gattal jox ko mu nuyu mbolo mi koy seetaan ñu doog dugg ci euh, buntu waxtaan wi ba Ibrahima bismillah auzu billaahi mina rajim bismillahir rahmanir rahim rahiim barkeb Seex Mm-hmm. gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci rasulillahi salaa sam sant seexal xaddim mm-hmm. di ñaanal yàlla seex Mamadu Muntaxa yàgg fi lool te ànd ak wér ak mboolem njaboot Sëñ Tuubaa gépp di ñaanal it jëwriñam ji nga xam ni moom lay jox liggéey bi muy sëñ Basiru Mbàkke moom Seex Abdu Xaadir Mbàkke yàlla na yàlla guddal fanam yàggal ko wéram ci pas-pasam ak taxawaayam ak it liggéey bi nga xam ni ñu koy ànd ak nit ñi di ko liggéeyal sëñ Tuubaa maamam ja ñuy ñaan yàlla yàlla it defal ko ci ndam defal ko ñëpp nag hmm. Cheikh Moudou Mountakha yi naal yi mu naal yëpp fas yéene ko liggéeyal Cheikhal Khadim ah comme ni ko waajuram yi ko jiitu woon ak i magam nañ ko defe woon yàlla na ko ci yàlla may ndam lu kawe njottam ba ci daara ji nga xam moom koy sa sëñ Tuubaa waxoon ko it ak ni mu ci taxawee lépp sa sëñ Tuubaa njàng dong la mos a bëgg moom lay dégle woon hmm. lil Moustapha lii banaa xuddoo sa madrasatin bihaa yazal azal jaal wal abadu hmm. joojee mu waxoon si na koy waajum doon yàlla na ci am ndam ñu ànd ko moom ci barkeb Seexal Xadim di nuyu nag boolem jullit yëpp nag nekk ci réew mi ak ñi si bitim réew di ñaan yàlla it gi ñu jëm ci muy fukki fan ak ci weeru safar te ñëpp di ko waajal yàlla nañ yàlla may kàttan ak wér ak xéewal ak mucc ba ñëw ñëw Tuubaa jàmm ba santal yàlla Seexal Xadim ci ni ko digle woon si barke borom Tuubaa jërëjëf jëf jërëjëf sëriñ Ibrahima Mbaye Diop ci nuyoo bu sell boobu nga xam ne amal nga ko mu mel ne kon yaa ngi ànd ak Magal TV waaye yaa ngi ànd ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñu fas yéene dugg rek ci liggéey bi ni ko waxee woon mu mel ne ku ne xam na ne fii ñuy waxee ak yéen ñi ngi waajal bis bu sell boo xam ne muy fukki fan ak juróom-ñett ci safar di bis bi nga xam ne ci la bi xëy woon liggéey boromam muy liggéey bu sell bi nga xam ne tey jii bi mu ñëwee umma islam bépp ñoo ko jariñoo mu doon liggéey boo xam ne amul xàjj ak seen képp kuy wax ashadu an laa ilaaha ci nga bokk kon defe naa Baye Ibrahima loolu dana neex a waxtaane tey mu mel ne tey jii fépp ci àdduna bi fenn fu ci ne ci gox yi fasantikoo ñi ngi waaj di war a wis ci dëkk bu sell bii di Touba wàccaay woowu nag am na ay soññee yoo xam ne aju na ci loolu nag laa bëgg nga dikkal ma ci ndax kenn ku ci ne am na pas-pasum ñëw ci Touba waaye nag dana jaadu ñu soññaat la ci ni ngay dikkee ba mën a agsi ci dëkk bu sell bii di Touba loolu defe naa ne Baye Ibrahima kon faaw nga indi ci rek ay leeral su ko defee mbokk yi mën koo jariñoo ah jërëjëf sooy bu hmm. ah li ma ci jëkk a waxaat muy kàddu goo xam ni dama ko yëgaat ci jataay bi hmm. mooy ba ko Cheikh Modou Fadal wootee ci dëkk bu tedd bii ngir bëgg ñu màggal si fii sant lal sëñ Touba ci dëkkam bii ngir ke lepp lu am dekkam bi ko gënal lu mu bëgg ci dekkam bi la bëgg ñu defal ko fi hmm. bam ko mag ña nga dégg neen wax ja sa amone pas-pas booba jamono metti won na ndax booba ay kaaran si sa fi nem ak ay commune car ak ay pick-up ak ay sëw rewester ak ay pontiac ak ay yi nga xam mom lañ wax gips ak Land Rover fu rew mu nek ak dekk bu nek ci Sénégal sahar yi bi Ndar bi jógee Ndakaaru di départ Thiès bi départ Tivaouane bi nga xam day départ Tamba ñëw ba ngeen gineew mu taxaw bi départ Kaolack ñu croisé ñëw njaareem ma ngi seen Pastef ya ak nan daan waaje sa booba yoon ni neexul oto ba oto yi suuf euh, tëlli amul woon waaye dañu mel ni kat la sëñ Tuubaa xam ni waa ajjatan liman bi leftin irtidaa wa ujjatan laa mu xale xadaa hmm. kon mag ñi waajtaay wooween daan yor nga gis waajur ñi dañuy defar seen suusal ñi di seen muuraake ñi defar yi nag seeni euh, gerte lépp ngir waajtaay yi pour bëgg seeni màggal ci bisu sëñ Tuubaa bi bas bas ñi nga xam saxaar dañ ci matt ñi matt mi ñi mag ñi ñi nga xam dañuy defar lu nekk ngir fëccee na ñëw Tuubaa dëkk boo wàcc saxaar gi ci gaar yi ñu lay teeru fii ak i beñe ñii di la teeroo ci ay ndox ñii di la teeroo mboq ñi di la teeroo gajànga ñii di la teeroo wuul ñii di la teeroo it li nga xam ne xel moom lañ ndox lépp ci dëkk boo wàcc nag saxaar yi nag dàqe nag wut ci Tuubaa sa boobu metti na waaye mag ñi seen pas-pas ak seen gëm sëñ Tuubaa ak woote bi nga xam ne mooy njariñ ci àdduna ak àllaaxira fii lañ ko mën a ci dëkk sëñ Tuubaa bi la mag ña nekkoon bu ñu saa ñëw ba wàcc dëkk bii wàcc ci gaar bu mag bii boobu wutiir yee fi ne ak sa ak fas yi boobu oto amu fi mag ñi dañuy dox ñi dañuy war wutiir ñi dañuy wax fas wax sareet ñii it nga yenu mag ñi yenu pañe yi ñii yenu bool yi ñi yenn super yi ñi wàcc gaa bu ndaw ñi wàcc gaar bu mag sa booba gaaraas bi fi nekkoon fii moo mi ngi woon fii tey jii fii di kër sëñ Abdou Lahad gi booba it booba Touba mais euh, noonu la jamono foofu la toll waaye boobu Moussa dikki da nga yëg di mag ñi woote sëñ Touba bi yëg nañ ko waaye ànd nañ ci ak dal ànd ci ak ngëm ànd si ak taalibe ànd si ak bëggante doo dégg ku xuloo doo dégg ku wax lu ñaaw doo dégg ku def lenn lu waay am bokkoog sa morom boobu foofu la mag ñi tolloon waaw. <laughs> jërëjëf Baye Ibrahima mu mel na ci sa biir wax la mag ñi niñ daan dikkee ndeke comme noonu nga ko waxee ñii gàttandoo leen am ndox ñii kafe daa mel loolu dafa jëf jeexital ba suñ jooni tey murid yi ñu ngi dund loolu gis naa ko. waaw xam nga lépp loo xam rek. Mm-hmm. mag ñi defoon nañ ko rek. waaw. Euh, gone yi. waaw yeesalaat nañ ko. waaw def na ci sunnatoo insaara bi ubba yenn bi rek. def na jeexital yeesal gi yéen ci waa yees sunu sosaay mag ñi nag li ñu ñu bàyyee. moo tax tey jii nga gis ay safar waaye bu dee safar daawul am. màggal dong la mag ñëpp daan waajal ñëw. waaye di ko gàttandu nii kenn ko ne dëkk bi ne ñëpp di togg xale yi di ko def nii berne nii boobu amul woon waaye baaxul sëñ Tuubaa hmm, ak la ba ñoo defee moo jeexit ko moo wàccel ci gone yi hmm, ak barkeel gu lee barkeel gu mu barkeel moo tax mu wàcc ndax dëkk ba mu sàcc dañ laa dëkk ba mu saxaa mu sax taxaw dañ lay teexu di ñaan di la di la teral ngir jëmmi sëñ Tuubaa ak bu fa nga jëm naan la ñaanal ma boo demee ñaanal ma boroom kër bu nekk bala ngaa génn sa kër it na nga daan def mooy fexe fexe ba bàyyi te xaa nga sa kër donte genn gannaaw it ne leen sant leen ci yàlla sëñ Tuubaa booba loolu moo am bu ñëwee Tuubaa yit ñi nga xam ne jekku nañ ko su mën a jënd gileem dañ ko jënd ñi ko jekku mën a jënd dañ koy jëf ñi nga xam dañ ko jekku mën a jënd ay gannaaw ko ñi nga xam jekkuwuñu ko woon jamono joojee dañ daan boole jënd nag daf koy sàmm séddoo ko kenn ko ne yóbbu sa kër togu ko togu gu yéeme boobu jawna ndax ndax boobu macaroni bari na pomme de terre bari na patate bari na ñu togg ko togu go xamni xani bala midi mag ñi yàq mag ñi nga xamni ne ñu fi fii ñu jàng mag ñi di jàng duuri daarin ñi jang tasadul saxaar ñi di jang isnu lablaar ñi jang muhaddimatul lamda ñi jang maayu ñi jang jës bu ñi jang ray yeñ mag ñi kenn ku nek yaangi seug sëgg fenn ngir di yek sëñ tubaa nga xam bo bo bo fa joge bo ak say cheikh mut bachir ci taram ba boko ko dee sa xol day sedd mu kalu kal naar ga ak ak jëmmu jëna mu taaroo nga xam bo dikke mag dal bo xante do am dara do am hmm. wallahi lajim dara do am ñepp da naan tek kenn ku ne da nga duggu siyaare ko mu tok tak wéram yu rafa ya bo fa jógee bo demee seigne fallu da ngay fekk mag ñi ko yi genn mu and ak dal ga nga xam bo mu sajj seigne fallu da nga gis na aljana ndax lay biir ga ak baax ga ak yaatu ga ak tabe ga. nga xam ne buur gi nit ñi buur bu njëkk loolu amut. amul woon ndax yara amoon. Hmm. dal moo amoon. yar moo amoon ak dal ak wegoon nag ki ngay fekk ci. kon loolu kon loolu mat naa delloo si waat. ah eh, lu jafe la fii toll ndax ni ñu doxee moom nasaraan bi dugg nañ ci lu bari wegal ak sutura gu wax ma mi ngi bëgg tumaranke na waaw nga jóge fii dugg kër Seex Sëriñ Saar moom Seex ba Saar nga xool ma ngi nañ fa bel nga jóge fi dem kër Sëriñ Abdou Xaadir demal kër sëñ Soybu demal kër sëñ Saaliw dégg nga demal kër sëñ Abdou Lahat demal kër sëñ Mahamadu Njobe demal kër sëñ Xaas Mbàkke demal kër sëñ Abdou Karim Touré demal kër sëñ Badlam demal kër sëñ Modou Fa Jamañang ah demal kër sëñ Mahamadu Njobe demal kër sëñ Modou Fa Taxare demal kër sëñ Balla Faali Jang demal kër sëñ Dëkk Ñang demal kër sëñ Mor Jaara Saar foo fi dem ba sëñ kër sëñ Modou Saar boo demee Gédé fu nañu mel la boo demee kër sëñ Daam Abdourahmane Lo boo demee daaru alimul xabir boo demee kër sëñ daaru Assane Ndiaye foo ci dem boo demee daaru xudus kër sëñ Seex Mbàkke Gaynde Fatma nga dem kër sëñ Mbàkke Madina foo fi dem da nga yéemu ci yàlla mag ñi bëggante wóolonte doylonte nawlante woon ngir yàlla ak jëmi sëñ Tuubaa loolee dafa tumuraanke léegi nag. waaw léegi loolu nan la ñuy def ba delloo si ko. ah ah jafe la de. waaw ah, waaye xanaa solution war naa mën a am. solution bi mooy na gone yi wegaat mag ñi. sa su dundaan mag ñi sa xam kilifa du moom marketing bii ñu xewal jege sëriñ boo ko gis naa ci masaalik bi loo xam ni sëñ Moustapha Nawel yàlla na yàlla guddal fanam. yàlla na yàggal ak taxawaayam. taxawaay bi sëñ Bassirou ba Mbacké taxawoon sëñ na ko keroog taxawaay bu sëñ Moustapha taxaw doomu sëñ Tuubaa bi sëñ Ablaat sëñ Moustapha Nawel def na ko ci ci ubbite masaalik gi maa ko gis kenn waxuma. ndax bi sëñ Mountakha taxawee. caméraman bi nga xam daa ñëw ba dikk ba xam ko bay bay sañ sëñ Muntaxa na ko sëñ euh, euh, Moussa na wëlbatee ba delloo ko nga xam ne foofa kenn woo faa waaye gone yi dañuy bokkanteeg mag ñi sax boo ko seet loo xam ni ma xool ci foofee taxawaayu sëñ Bassirou ci pas-pas ak bëgg sëñ Tuubaa ak wekk wekk kilifa gis naa ko foofee ndax du maa nga xool ndax la ma xool ma xool taxawaayu it bu mu taxawaay muy taxawaayu sëñ Moustapha Bachir ci ni mu daan def si yëpp ak ni mu ko daan def ma xool ci ni lii daal ma ma ngi démb yi daal ba tey mi ngi fi ba ngi démb yi ba tey. Mhm. mi ngi fi mu ngi fi. mi ngi fi. Mhm. ma xool ko bi muy génn kër gi bi sëñ Mountakha di génn kër gi sëñ Moussa Nawel dafa takkal a xasaay dafa takkal a xasaay ba ma ko séenee sama yaram dafa daw barke bàyyi sëñ Saar ma ni kii murit saadix la ndax man li may dund mooy mag ñi lay dund ndax ma gëm a jur. Mhm. mag ñi doo te it mag ñi jeexitu mag ñi laay xool mm, ndax li sa du ma ko xool ndax li seet moom gisuma ci daal lu ma yóbbu fenn dëgg la kon foofee nag war nañ fay dellusiwaat waaw war nañ fay dellusiwaat ba xool ni bàmba ji ñu ko sos ak nañ ko sose woon ak dañ ko def ba mu ak ci fii sa ci ko sos ni mu ko sose si weex ab yar ak i teggin ak sutura ak wax ma loolee daa war a si loo koy indi nag mooy dañuy daal di seetaan ni fii ñu nekkat du yoon bi dañoo wàcc yoon bi nag kilifa gi tey jii du Modou Mountakha bu doon dugg ci kër gi donc boobu moytul ñu gaañ ko sa polan la dañ koo wax dañ koo war a sakkanal wax koo wekk dëgg la wax koo jox sutura mhm. sa yow ngeen yaakaar ni kii mooy Sëñ Tuubaa kii ngay xoole jëmi Sëñ ci kaw ak âge bi mu toll nga wax koo joxal njukkal xam ni kii mooy sa défense am na ak alaaxira mu yox lu des gan téyel ko ñëpp nga wax koo waggar nga dikk ba sës si moom ak fi mu toll. ak di xëncoo dem ba jege ak sëñ bi. nekk fa yow sa téléphone nekk fa di wax a keneen di wut say projet si biir pour lan mën naa ñàkk. lii la yàlla war a jox wa maa min daabatin di laa illaa alaa rizquhaa dana ñëw yàlla gémmiñ gu mu xar dana ci jox dara nga kenn mënta te nga am ko wasuf kàkkata avion du ko yóbbu. kon daal faaw ñu delloosiwaat. li ñu war ma ak màggal te loolu bi la dégg naa mas naa am ko jàng jës bu ba toll ci faxtari man wa azimi mhm. mu ne déggal war ma ak màggal mhm. képp ku ko def yaaraw dégg nga sëñ bi la muy wax faxtari man wa azimi mu ne war ma ak màggal képp ku ko def sëriñ bi yaaraw kon day mel ne euh, su ma déggee mel na ne li nga xam ne tey jii moom moo indi doxin wi nga xam ne tey jii des mel na lu xaw a diib mhm. loolu ci la il faut ñu delluwaat wegeel ak wor ma ak nga wéet ak nga wéetiliku la sëñ bi waxoon ak nga nekk ci barab di fa kenn nga nekk di fa junni faaw ñu indiwaat pas-pas yooyu te xam ne sëriñ bi la bay jaxate waxoon day yëri xol kenn mënu koo nax kon kooku defe naa ne wéetal ko moo gën a gaaw nga toog ci kanamam sax kon defe naa ne loolu moom muy lu am solo kon dama bëgg a ñu dikkaat léegi ci wàccaayu ba léegi ndax tey bisu soññee la soññee ci màggal jaaru na fii ñu toll nii tembe ci safar ndax ñu ngi ci fukki fan ak benn tey waa bitim réew. lan nga leen di wax. waaw waa bitim réew li ma leen di soññee mooy sëñ sooy bu mu ngi ci bitim réew dara jëy seex sëriñ saa ku ne pas-pas amul. ñoom waa bitim réew. waaw ndax xam nga ko ka nekk Allemagne ak ka nekk France ak ka nekk Belgique ak ka nekk Hollande ak ka nekk Autriche ak ka nekk Norvège ak ka nekk Suède ak ka nekk Finlande ak ka nekk Helsinki ak ka nekk Canada ak ka nekk états ak ka nga xam moo nekk Espagne ak ka nekk. Euh, euh, Italie ak fa mën doon ci Europe laa la ba ci Angleterre ba ci Espagne kenn ku nekk yaa ngay wàcc aéroport boo dem na ngay wàcc soxlawuñ lu du si sëñ Bàmba bi dagg ko biir nga xam ne aéroport yi boo demee avion yëpp fees na ngir ngir rek euh, woote bi sëñ Tuubaa bi woote bi sëñ Tuubaa bi lakin unaa di kuleel bilaa di ilaa yi maa di bilaa jàlla yaa lal bëri yaa lal bëri ujoolul bëri bëri sax kon woote bi rëy na. Mhm. woote yàllaa ko woote loo dem woote waaye ñëppay wuy si de. ñëppay si waaye wuy si gi nag xool ni mu wuy see santal si leen ma yàlla ci lii santal leen ma yàlla wax nga xam ne xel ni dëkk boo dem boo demee tey ji boo demoon Francfort wala nga dem Münster wala nga dem Dortmund wala fan nga dem birafen wala Aachen wala Stuttgart wala Hambourg wala Bremen wala Bremerhaven wala Aydin wala Köln fa noonu boo dem Paris Marseille Nice Montpellier Saara Fayal Bordeaux Cannes dégg nga Normandie. Toulouse dégg nga ba acte terme boo fa demee tey jii ñëpp waaj nañu boo demee Italie yi ña nga tàmbalee ci si Ngogna Bergamo euh, euh, Cagliari Nuoro Genoa Porto de Vico dégg nga Brescia kenn ku nekk waaj. ña ngay waaj waaw boo demee Espagne la tàmbalee Ibiza Sevilla Valencia Gijón Bilbao Madrid Palma de Mallorca Valencia dégg nga jàpp Tenerife ñun ñëpp a ngay kenn ku nekk yaa ngi waaj ngir bëgg a sant la ci nga xam ne am na ñoo xam deppaa nañu seen oto yi. Jidli. li lan nga leen mën a soññ ci dikkin woowu ngir ñu bañ ci am benn gàllankoor dikkin woowu nag li ma leen soññ mooy am réseau bu ren génn na ci yoon wi sa mi ngi ci Maroc moom Maroc waaw nga xam xel ni ay New York 4 4 la di ay ay marocain boo àndee yow dong danañ fexe ba da ba dàq la ba dab la nangu sa oto nangu say nangu sa dem ma bëgg convoi la boo xam ne jógee nga ren ji Europe di jaar ci Maroc di jaar ci Alxesra def leen convoi def leen convoi def ko benn soq bu leen tàggaloo baax ci bu leen ko defee doon sax ndax mbooloo mooy doole ku tas rek gaa yi képp la mbaa gaa yi dévié la. te ñoom ñoom xam nañ dayoo màggal gi. xam nañ dayoo màggal ba si dañ ciy profité. profité ci waaw. dayoo màggal gi ñëpp a xam grandeur am ba wax étape Sénégal ñaata la am ci màggal yow seet xool. kenn xamu ko da ngay seet ni xam nga économie Sénégal ngi ci màggal Tuubaa hmm. li may xam nga ko hmm. ndax àdduna hmm. yow wóor nañ de boo xool tey waxuma liy jënd nag ak liy jënd xaar ak liy ndugg am nduggam ak ñi nga xam ne xel ni ñoo ñoo ñoo ñooy da ngay seet boo doon def rek boo ne woon trois millions de personnes kenn ku nekk def cinq mille francs combien de milliards la dëgg la sa lu bon bon na nga bu bon doon sept millions de personnes danañ fi dugg dëgg la sa kenn ku nekk loolu tax a jóg santal yàlla sëñ Tuubaa kon loolee nañu seet man lañ ciy def kon ñi dëkk ci réew mi ah wàcc nañu ndax ñoo gan yi ñibbisi hmm. kon waa Touba laay waxal tey hmm. bi des waaw kon foofu dafa mel ne euh, ni nga ko leerale waa bitim réew defe naa message bi nga leen lancé dégg nañ ko hmm. réew yi nga xam ne ñoo fasanti ko tey bàyyi ko ci gox yooyu réew mi mel ne Maroc comme li ci Baye Ibrahima leeral bu ñuy ñëw foofa ci dëkk yooyu ñu jaar ci xam ne kon convoi mooy li nga xam ne moo gën a jàppante ci seenu yoon kenn bañ a beru ngir ñi nga xam ne dañoo xaw a bindoo noo xam ne dañuy profité ci événement bi ngeen mën cee mucc léegi nag bu loolu jàllee waa bitim réew ñu ngi leen di ñaanal suñu borom jox leen yoon mu sedd guy ba ngeen ñëw ci dëkk bu sell bii di tubaa màggal màggal goo xam ne dana wuteeg mboole màggal bu ngeen fi mës màggal biir réew mi. Mhm. am na soññee njabootu sëriñ bi daan soññee daan wax ne. Mhm. bis bi kër bu accès mhm. yéen ñi nga xam yéen dëkk Touba. na ngeen wàcc lal yi. génn kër yi. jébal ko gan ñi. loolu kon loo leen di wax ñu. waaw loolu danaa fi ñëw nga bañ ma tuuti. waaw nan xool ñi nga xam ñoo ñoo dend ak ñun. waaw di waa Gambie. waaw waa waa Guinée Bissau. Guinée Bissau waa Mali. waa Côte waa Guinée bi Guinée Guinée Conakry mhm. waa Gabon mhm. waa Congo Brazzaville mhm. waa Congo Kinshasa waa Ouganda euh, waa Afrique du Sud dégg nga ñooñu ñëpp nga xam ne nekk waa Burkina ba waa Tchad am na ñoo xam ba beneen ñëpp a ngi waaj di ñëw oto yaa ngi ñëw yaa ngi ñëw ñëpp ci woote Sëñ Tuubaa ci Sëñ Tuubaa kon nag nañ seet ni ñun ñi dëkk Tuubaa la Sëñ la xoon rek laay wax Sëñ mooy jàmbaar yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla nañu ko yàlla fayal. amiin day barke bay sëñ sax. yàlla moo am positif. moo gëm sëñ Tuubaa moo ko wóolu moo ko doyloo. ni mu def dëkk bi waxam yi ma déglu léegi ñun ñi dëkk Touba nan la ñu wax mel. ak nan la ñu war a teeru gan mm. am sa gan bu ñëwee da ko teeru. teral mm-hmm. ko. Mm-hmm. kon ñun ñi dëkk Touba ñoo war a génn suñu ñoo war a génn kër gi. wàcc lal yi wàcc jox ko gan ñi jox ko gan ñi. dafa ko tey ci seen i service. daw seen service. Mm-hmm. waaye am sa kër ba mu noppi nga tëj ko ba mu raase gis naa ko fi fii ku jënd kër fii ci la ci daaru nam gii danaa ko kilifa la ci dëkk bi hmm. sa exemple la woon joxe jënd kër toj ko ba mu raase mu dënd kër sëñ Muntaxa Jeng te ko jënd toj ko ba mu mu daal di koy miiraat ak sëñ sa bu ko bale woon ba mu set ay nit ban faa dal ndax am na yoo xam si mbedd mi la dal kon kookee lan la defal sëñ Tuubaa réew mi ku fi am teraanga ci dëkk bi suñ taal ko jox. Hmm. ba ci commerçant yi ku fi am milliard amoo ko fi woon. dëgg la suñ tuwaa ko fi wa kasral xayraati azal ba létt na bu a yaatal sa kër hmm. joxe teraanga waaye taalibe yi hmm. sa taalibe yi ñëw yëpp dañuy sufandaale sa jox leen suñu kanam sa defaraat yi suñ jëmm sa defar bernde yi boole ko jàng xasida jàng alxuraan def salaatu ala nabi sant yàlla sëñ Tuubaa hmm. bu ñu ko defee dana baax lool ah ba ca des dama di ko lancé hmm. mooy hmm. kenn ku nekk may maa ngi ñaan ci barke sëñ Tuubaa nag kenn ku ne muslu seytaane ja julli si yonent bi sam jàng faatilu kitaab def junni xulwalaawu ak ñaar fukk ak juróom-ñett te jëkko salaatu ala def ko addiyee sëñ Tuubaa est-ce que loolu lu am solo la ndax lu ñu am sëñ Bamba. ak ça lu ñu am sëñ Bamba. Mhm. lu fi am sëñ Bamba kii dong liggéey woon ñëw ñëpp añ. parce que sëñ Bamba. dëgg la waaw kon jërëjëf Baye Ibrahima. daa mel ne jotaay bi jotaay bi soññe la. am na solo gàtt na waaye daanaka mënees na cee jànge lu bari jëmm ji ku ne xam na ne li nga leeral tey jii loolu ñëpp mën nañ koo dégg ndax kat sëñ Blaat mu baax ma wax nañu ne bu ko suñu borom fayee. ngeureumal yàlla mo ne ñokket du ko wër ya umun yarid wal min kulli wijhatin wali xiida yumna zikri wal khat wal khalam fum jëm mu fekk ko lolu motax tay ji fune way bayiko fa fasiyene ko siara ci dekkum biit gatandul ko ganam yi dalalal ko ko kon loolu farata ci ñi nga xam ne ñooy yeewoo Touba di leen xamal ne kon tey jii ñu ngi dalaloon Baye Ibrahima Mbaye Diasaka mii doon kenn ci magi dëkk bi waaye nag doon kenn ci liggéey bi ñu leen jox dig daje di leen xamal ne kon ci yeneen i plateau incha allahu taala wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa